ma yow dama bëgg nga régler ben place té buma waxat yow yi kuma yak nga yow joxoma cër eh. respecté woo ma ah yow fi fi ngeen génn fi ye ñaar ngeen xullo sénégalais wax né nañ yow bébé Binta euh, maytul Fatou Ndiaye maytul bébé Binta bébé Binta maytul Fatou nga ne ma tay sama xarit la yéen ñaa war ngeen a jote ndax yéen ñi taxaw di leen doon xaar dafa bari ah man nag li ma bëgg mooy yéen ñaa ngeen juboo seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel te yow sama doom nga Fatou njaay yow yaa tax ma xam ko man fan laa xamantee Fatou Ndiaye sax man fan laa xamantee Fatou sax xamatuma bu ma ko